jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne saay su ne yéen a ngi topp seen plateforme bi di ASID TV la chaîne des patriotes lactualité politique en l'instant saay su ne ñuy dalal suñuy gan tey ñu dalal benn kàngam boo xamante ne mi ngi bokk ci parti Pastef mu am message bu am solo boo xamante ne fas yéene na ko baaxee waa Sénégal ak waa bitim réew. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Babacar Ndiaye nekkoon vice coordonnateur. du mouvement national des jeunes de PASTEF ñu gën ko xam ci JPS euh, entre-temps le président Ousmane Sonko nommé ma dans son cabinet comme membre en tant que conseiller spécial chargé de la jeunesse ma bokk aussi ci bureau politique bu PASTEF les patriotes nekk en même temps coordonnateur des jeunes du département de Pikine mais aussi responsable politique euh, au niveau de Mbao donc euh, mbaaw foofu laa dëkk muy sama base mën naa wax sax que ni mooy euh, fi nga xamante ni dans la banlieue dakaroise foofu la Pastef njëkk sosoo njëkk a juddoo euh, ma nekk fa responsable politique depuis 2014 jusqu'à maintenant donc di leen nuyu di leen ziar leen ndokkeel ci victoire bi nga xamante ni Sénégal am na ko ndam bi ndamu Sénégal la ba loolu tax euh, le message bi nga xamante moom laa bëgg a jàllale ma koy dooree ci un remerciement remerciement bu amul bu amul bu amul limite parce que euh, li xew Sénégal euh, c'est inédit c'est une première en Afrique la population sénégalaise a montré encore une fois de plus que c'est une population très mature la jeunesse en particulier la jeunesse a montré que c'est une jeunesse très très consciente Euh, comme ni ko le président Ousmane Sonko tama waxee on a besoin d'une masse critique consciente des enjeux de l'heure aujourd'hui la population sénégalaise à travers sa jeunesse à travers vote bi nga xamante ni def nañ ko à travers élection présidentielle yi ñu jógee la population sénégalaise wane na ni askan bu mature la wane na ni askan bu bu bu màgg la mais aussi wane na ni askan bu bu kawe la noonu mu nekk nag askan bu kawe wane ko Euh, à travers les urnes de façon très très démocratique tànn njiitu réew de façon inédite comme ni ma ko waxee euh, ci noonu la ñu ni jaajëfalee remercier leen di wax ni ndam bi ndamu Sénégal la ndam bi ndamu Afrique la ndax Afrique mu ci sëgg à travers le Sénégal waaye itam di leen wax ni euh, ñu ngi ñaan yàlla ndam li jig askanu Sénégal ñu ngi ñaan yàlla espoir bi immense kile yaakaar bañ tas ñu ngi ñaan yàlla incha allah rabbi que la jeunesse sénégalaise gis seen bopp ci li nga xamante ni euh, mooy pal gi ñu pal seen seen nouveau président bassiru Bassirou fay Faye euh, parti PASTEF nag bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Faye bi ñu fal lu yàggul dara dimanche bi ñu weesu euh, dafa di parti boo xamante ni dafa bind histoire Sénégal bu dee mën naa ko waxee noonu ñun PASTEF nous avons écrit voire nous avons réécrit même je dirais l'histoire politique du Sénégal ndaxte benn jour rek maa ngi wax am na ku ma doon waxtaanal mu ne ma euh, on sent que Pastef ci lépp lu mu mës a dugg rek yàlla mais de main de Dieu dedans maanaam yàlla fi dugal loxoom euh, loolu nag li ko waral mooy dañoo nekk ci dëgg dëgg boo ci nekkee allah kulli xaal coow li mooy bëri rek mais y toujours loxo suñu borom ci biir ndaxte tey bu ñu xoolee fi Pastef jógee ñu xool Pastef ci obstacle yi mu jaar ñu xool li mu def euh, euh, li mu def ci prouesse politique ci exploit politique lépp tënku ci fukki at mën naa la si inédit dans le monde jamais dans l'histoire du monde on a vie un parti politique à l'espace de dix ans mu réussir li ñu réussir ci exploit en politique réussir ñu réussir ci prouesse en politique loolu c'est extraordinaire waaye aussi li ko waral rek mooy que ni comme j'ai dit tantôt dañoo nekkoon ci dëgg nekkoon ci lu dëggu yàlla suñu borom daañu si daañu si fekk si tey bu ñu xoolee euh, Pastef a vécu mën naa ne tous les problèmes du monde bu parti politique war a dund wala bu mu mës a dund j'ai l'habitude de dire bu ñu nekk en prison je disais toujours à mes yi ma nekkaloon ma ni leen le régime de du président Macky Sall def na lépp bàyyiwul dara ce régime a tué rey na régime bi tëj na régime bi gaañ na régime bi exilé na ay doomu aadama résime bi tas nay kër résime bi taxal na baay ak njaboot résime bi tas na parti bi régime bi tëj na président parti bi régime bi tëj na bépp kàngamu parti bi donc di wax ni bépp doole boo xamante ne yàlla suñu borom joxoon na ko régime de Macky sàll régime bi exercé na ko suñu kaw le régime de président Macky Sall deseluñu dara il a exercé tous les pouvoirs que que bi nga xamante ni euh, euh, nguur nguur may na ko suñu suñu kaw waaye terewul on est resté terewul on est resté vivant terewul boobu lañ gën a sax ci xolu sénégalais yi loolu nag sant yàlla bu wér a wér a wér a wér ñu am si ñaari njàngat jàngat bi si njëkk mooy euh, boo bëggee nekk njiitum réew wekkuwul ci ay chemin politique wekkuwul ci ay calcul politique boo bëggee nekk njiitum réew nekk njiit bu diñ nekkal ci dëgg seexal dëgg ak sa askan waxal dëgg ak sa askan xeexalal sa askan fexeel ba li ngay xeex sa askan euh, gis ci boppam fexeel ba sa askan porter la dans son cœur fexeel ba sa askan bëgg la fexeel ba sa askan gëm la parce que en réalité ce qui a fait la force de Pastef que dañoo fexe ba projet bi dañoo fexe ba suñu combat sax ci dënnu sénégalais yi raison pour laquelle bi le président Macky Sall et son régime jàppee parti bi tas ko jël njiit bi tëj ko jël kànga mi tëj leen jël ñi mu rey leen Pastef gën a dund gën a dekki gën a taxaw parce que dafa nekk ci xolu sénégalais et ça s'est traduit ça s'est manifesté à travers élection yii ni nga xamante ni moom la ñu jógee donc di wax ni li am Sénégal à travers Pastef en l'espace de dix ans mosul am le président Abdoulaye Wade ñu koy sargal bu baax a baax di ko ñaan yàlla may ko gudd fan il a fait plus de vingt cinq ans d'opposition mais ce qu'on a réussi en dix ans il ne l'a pas réussi en dix ans le président Senghor avec le PS ce qu'ils ont fait en politique euh, euh, je peux dire que nous ce qu'on a eu à en dix ans ils l'ont pas fait naam que ñoom ils ont été au pouvoir pendant euh, presque quarante ans le président Macky Sall qui s'est opposé qui aussi euh, affine au pouvoir n'a pas fait donc si on a réussi une telle prouesse dañ koy sante yàlla di ko sante askanu Sénégal di xam ni dëgg rek moo mujj dëgg rek moo njëkk te mooy mujj dëgg rek moo wóor di ñaax askanu Sénégal den wax que ni lu ngeen mën a yokk góorgóorlu yokk leen ko góor góorlu l'ai dit tantôt l'espoir est immense yaakaar bi rëy na durant la campagne fépp fu ñu dugg ci Sénégal askanu Sénégal ñu ngi doon xaar n'importe quelle heure ñii xaar nañu ba heure ndogu ñii xaar ñu heure xëdd ñii xaar ñu heure reer ñii xaar ñu heure heure julli fajar heure boo mën di xalaat rek askanu Sénégal xaar nañu ko te li ci ëpp ci ñoom ay ndaw lañu pour wane ni l'espoir est immense l'espoir est très très très grand donc di leen wax que ni on vous appelle à l'union pas à l'union de la masse mais à l'union des cœurs ci loolu la ñu leen mës a woo te ci loolu la ñu leen oowaat Nous appelons toute la jeunesse sénégalaise nous appelons toute la population sénégalaise à lu l'union des cœurs nañu boole xol yi ñu xam ne li nga xam te ñu ñoo ko bokk te munu koo séddoo mu le Sénégal suñu Sénégal la on s'est battu corps et âme xeex nañu xuloo nañu rey nañu tëj nañu lu nekk daj nañu ko ba jot ci li nga xamante ni moom mooy réew mi waaye gannaaw la ba ci jotee engagement bi nga xamante ni moom la ñu amoon ci xeex pour jot ko nañu am bu ko raw ci defar ko et c'est très important lii dama koy waxaat ñëpp dégg ko dama ne engagement bi ñu amoon di xeex guddi ak bëccëg di rayante ak régime bi ñu naan ñu kenn du xeex ak état ñu naan ñu état daa bëri doole kenn du xeex ak moom ñu jàkkaarloo ak moom pendant fukki atu yàlla sans répit sans répit engagement boobu ñu xeexee ak régime bu mag sàll ba jot ci réew mi engagement boobu bu ko raw la ñu war a am pour tabax réew mi te loolu nag pour que mu sotti ndaw ñi kese kese kese ñooy solution bi donc comme ni ma ko waxee léegi nii liggéey Sénégal tabax Sénégal rek moo war a nekk suñu ittee waratuñu nekk ci ay détails ñu nekk ci lu ñuy tardeel ñu nekk ci ay divertissement dañoo xeex payer le prix fort pour jot ci réew mi nañu gën a xeex pour tabax ko génn taxali ko ak lépp luy détail et ci kaw loolu noonu may wax ni c'est là où on attend le président Bassirou Diomaye Faye te quelqu'un comme mois yàlla dogal ma xam ko depuis 2014 bi ma intégré le parti cheminé ak moom avec le président Ousmane yàlla dogal ci biir cheminement boobu noonu ñu bokk benn kaso bi ñu tëjoon ñu dund man ak moom presque un an en prison mars 2023 ba mars 2024. jege googu ma ko jege xam googu ma ko xam am naa yaxin et ma main sur mën naa ko jurer que ni li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom dina ko matale ndax c'est quelqu'un qui aime ce pays c'est quelqu'un qui a tout donné pour ce pays may wax ni li nga xamante ni askanu Sénégal jamono jii loolu la gën a yittewoo mooy ku ko allégeel les conditions de vie qui sont extrêmement chères au Sénégal nous espérons que le président Bassirou Diomaye fay ak équipe bi muy àndal yëpp incha allah rabbi nu réussirons en tout cas à améliorer les conditions de vie des Sénégalais dund bi gën a ñoŋ cher na ñu xool li ñu ko oyofale ci Sénégalais yi location bi gën a ñoŋ cher na ñu xool li ñu ko oyofale ci Sénégalais yi transport compliqué na métti na ci réew mel Sénégal ñu xool ni ñu ko oyofalee ci ci sénégalais yi njàng sooxe na santé bi sooxe na secteur boo laal Sénégal day métti tout va mal au Sénégal ñuy xaar que ni incha allahu rabi le président Bassirou Diomaye fay ak ni ma ko xamee ci ay qualité ni ma ko xamee ci quelqu'un de pondéré quelqu'un de réfléchi quelqu'un de très très très intelligent et très patriotique am naa yéexin que ni incha allahu rabi moom ak équipe bi mu àndal yëpp. incha allah on sera à la hauteur de l'attente des des sénégalais muy lu am solo nag mais ma préciser que ni li nga xamante ni ñun euh, incha allah rabbi ñun yàlla dénk réew mi moom la ñu xaar askanu Sénégal surtout ci ndaw ñi. du développer Sénégal parce que incha allah rabbi le projet de PASTEF dafay développer Sénégal loolu bu ci kenn am xel ñaar. le projet que nous avons ñëpp gis nañ ko ñëpp lire nañu ko le président Sonko porté na ko. expliqué na ko wax na ko fu ne c'est un projet qui va développer ce Sénégal loolu bu ci am bu ci kenn am xel ñaar mais fi nga xamante ni foofu la ñu xaar réellement les Sénégalais surtout la jeunesse mooy la construction du ma ne reconstruction de mooy la construction de l'être humain de l'homme la construction de la conscience sénégalaise la construction de de de de l'homo sénégalensis foofu mooy fi nga xamante ne ñun foofu la ñu inviter le Sénégalais surtout la jeunesse parce que en réalité on peut beau les institutions du monde on peut beau avoir tous les beaux textes du monde mais doomu aadama bi doomu aadama bi bu buñ ko tabaxulee bu baaxulee bu melul ni mu war a mel rien n'ira rien n'ira bon et ça c'est très important te ñun suñu doole wax naa ko sànq suñu doole askanu Sénégal la suñu doole c'est la jeunesse suñu doolee population Sénégal la ñun amuñu woon ay milliards amuñu woon ay millions amuñu woon ay milliards amuñu ay mallettes d'argent PASTEF ne s'est pas construit avec des millions ni des milliards ni des mallettes d'argent PASTEF s'est construit à travers un discours véridique un discours sérieux, un discours honnête qui pénètre tous les cœurs, un patriotisme hors et notoire. loolu nga xam ne moom la ñu tabaxee Pastef loolu la bëgg tabaxee doomu aadama bi te doomu aadama bi loolu la war a tabaxee Sénégal et c'est très important. je répète encore on ne parle pas de développer le Sénégal côté infrastructure incha allahu rabi notre projet va réussir cela mais on parle de construire le Sénégal et le mot sénégalensis on parle de tabax doomu aadama bi on parle d'éveil de conscience on parle de mentalité et de maturité et là c'est extrêmement important je lance un appel à la jeunesse sénégalaise nañu bàyyi tëdd muy dox bi na ñu bàyyi toog muy dox bi na ñu bàyyi tëdd naaw bi fayul dara liggéey ñax jariñoo Euh, réew comme ni ko l'honorable député Guy Marius Sagna di waxee ma ko ñu de passage réew doomu réew moo koy tabax c'est pas les chinois qui viendront développer le Sénégal c'est pas les japonais c'est pas les américains c'est pas les français c'est nous les sénégalais qui développerons ce Sénégal et ñëpp xam nañ ni ni ñu xeexee jàkkaarloog état ñu naan ñu c'est de l'utopie mënul nekk ñenn ñi naan gagner premier tour c'est impossible ñi naan non c'est faux dama ni gëm-gëm boobu ñu am ba jàkkaarloog état xeex ak moom ba tey ñu jël réew mi bu ñu amee bu ko raw tabax réew mi tabax doomi réew mi doomi réew mi tabax réew mi et c'est très important te lool ci ndaw ñi lañ ko yaakaar ci yéen ndaw ñi lañ ko yaakaar donc travaillons pour l'éveil des consciences travaillons euh, euh, euh, pour consolider la solidarité travaillons pour consolider l'union des cœurs mais aussi travaillons travaillons et travaillons surtout surtout surtout pour l'unité nationale Nous vivons dans un pays avec diverse culture nous vivons dans un pays avec diverses religions ñu vivons dans un pays euh, euh, mën naa ne multipote yàlla may nañu lu ne cosaan bu ne am nañ ko aada bu ne am nañ ko diine bu ne am nañ ko donc pour dire que ni qualité bu nekk am na fi compétence bu nekk am na fi nit bu nekk am na fi euh, façon nit bu nekk am na fi lii nii yëpp nañ ko boolee ñu tabax réew mi ndaxte kat la première ressource d'un pays c'est pas son pétrole La première ressource d'un pays, c'est pas gaz, c'est pas zircon, c'est pas or, c'est pas diamant, c'est pas ressource alétique. La première ressource d'un pays, c'est sa population, c'est son peuple, c'est en particulier sa jeunesse. Et nous, nous ne comptons pas considérer notre jeunesse comme un sacerdoce euh, euh comme ni ko suñu prédécesseurs yi jàppee woon parce que non prédécesseurs ñoom dañu jàppoon ni ndaw ñi seen sakkanaay bi ñu sakkan bari gi ñu bari coono la fardeau la poids la woon ci ñoom au lieu ñu xool loolu comme un ndaxte bu ñu fàtte ni population moo ko développé et dans d'autres pays dans d'autres contrées nous nous voulons compter sur cette jeunesse là aussi nombre qu'elle soit na gën a bëri ñu tàggat leen nag forme leen préparer leen waajal leen à ce que ñu mën a porter ce pays son développement porter sa construction nous comptons sur la jeunesse sénégalaise aussi nombreux que vous êtes yàlla na ñu gën a bëri loolu ñu ñuy ñaan ndaxte ndaw mooy tabax réew ndaw mooy téye réew yàlla na ñu gën a bëri ñu loolu la ñuy ñaan c'est pas un fardeau rek mooy que ni fekk si leen ñu ci li fekk si lañ ci lañu oo muy éthique waaye fekk si lañu ci lañu o muy li ñuy wax la fraternité maanaam euh, saxal jàmmoo suñu biir saxal mbokkoo suñu biir saxoo suñu biir mag ak rakk bokk ndey ak baay c'est très important l'union de la masse waxuma ko mais l'union des cœurs ndaxte mbooloo bi lu mu bari bari bari bu xol yi dara du sotti waaye lu mu néew néew néew bu xol yi mu sotti li ñu songandoo doorandoo ko ba daan ko la ko songandoowee bu ñu ko yokkoo tabax suñu réew tabax doomi réew mi et c'est très important. voilà donc euh, l'autre message bi nga xamante ni moom laa bëggoon jàllale nag euh, dama koy baaxee ñi nga xamante ni dañu tàmmal benn affaire li ñu tàmmal mooy dañu nekk ci nguur jékki-jékki nguur gi daanu ñu bàbbeeku buub seen i bagage màbb daw uti nguur ga nga xamante ni moom moo toog ñooñu lay lancer un appel euh, ñun rupture la ñu wootee. rupture la ñu wootee maanaam bépp pratique ancienne bu fa nekkoon boo xamante ni mosuñu ko saluer askanu Sénégal mosu ko nangu te mu bokkoon ci yàgg a gangrené doxalinu Sénégal dañu ne pratique yooyu noonu ñun bëggatuñu ko pratique yooyu ñu dañ ko suur donc yéen ñi nga xamante ni nag de façon très naturelle dafay naa yomb ngeen ne daw di uti fu ñax mi nooyee fu fu ñax mi neexee fu ñax mi yombee ci yéen au détriment de l'intérêt général nga la que ça va pas passer donc ça c'est un message que je tenais donner di wax nii ni askanu Sénégal le président man Sonko dafa am lu ñu jàngaloon le président Ousmane Sonko moo ñu jàngaloon nañu njiit boo ko falee doo ko fal rek ba ko mu dem nga wane ginnaaw da nga koy fal ba pare nga taxaw temm jàkkarloo ak moom surveiller ko ci kaw surveiller bi nag ci nga koy aarale aar suñu président Bassirou Diomaye fay ak équipe bu mu àndal yépp surveiller le président Bassirou Diomaye Faye ak équipe bi mu àndal yëpp moo ñu toog taxaw temm ba lépp loo xamante ne pratique la bu ñu xamoon ci nguur yu njëkk ya bu ñu si naree dugal bu naree am ñu taxaw ñu aar ko et c'est très important le président Bassirou Diomaye fay danaa taxaw ci moom parce que comme je l'ai dit yàlla dogal na ma xam ko mu nit ku baax nit ku sociable nit ku jub je bien nit ku baax nit ku sociable nit ku jub euh, mën naa jël ci man ci man en toute responsabilité que ni on a le meilleur président du Sénégal l'Afrique vient d'avoir le meilleur président qu'il n'a jamais connu ça je peux vous le je le jurer te waxantu ma nag ndaxte kenn musuma xamee waxantu mais yàlla dafa dogal ma dund ak nit ki xam ko ci njub ci njub ci droiture mais xam ko ci sérieux le président Bassirou Diomaye Faye est quelqu'un de très organisé quelqu'un de très méthodique très calme e inébranlable dara mënu koo ébranler je me rappelle très souvent dañ daan toog en prison di waxtaan man moom ak le professeur Cheikh Omar Diagne de passage un grand monsieur yàgg naa ko wax ak ñi ma fa nekk noonu ñëpp ma leen di saluer de passage mais à chaque fois quand on discutait euh, des problèmes du Sénégal surtout des des des des des des points les plus sensibles parce que aussi il faut le dire Sénégal il y a des points très sensibles à chaque fois bu ñu toog di waxtaan ba dugg ci ay points yu sensibles le président Bassirou Diomaye me disait quoi euh, Babacar ma ko naam mu ne ma écoute Sénégal bu ñu bëggee dem il y a de ces décisions yoo xamante ni il faut les prendre fortement il faut les prendre sans arrière-pensée il faut les prendre en ne voyant que l'intérêt Sénégal bul xool ki lay mere bul xool ki lay bëgg ndax kenn kooku di la mere am na 18 millions de Sénégalais yoo xam ne seen intérêt moo nekk en jeu kenn kooku di la bëgg am na 18 millions de Sénégalais yoo xam ne seen en jeu kon boo ñu bëggee toog naan non lii dafa sensible lii kenn war a koo laal non lii dañ ne non écoute le président le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas dans ça et c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions il saura les prendre et il les prendra fortement tant que l'intérêt général mu ngi taxaw et dans tous les domaines pour dire que c'est quelqu'un qui est prêt à vraiment faire du nettoyage gis ngeen boobu noonu ngeen gis du hasard le président Bassirou Diomaye Faye va nettoyer toutes ces pratiques anciennes yi nga xamante ne ñoo yàgg a sonal Sénégal ma gëm ko ci jubam wóolu ko ci dëggoom ci sëréem ci pondéra ci ci pondéreem mais aussi wóolu ko ci éthique bi nga xamante ne moo ne ci moom ak si patriotisme am lii yëpp nag euh, nous le devons à une personne qui est Ousmane Sonko ñëpp xam ko le président Ousmane Sonko parce que wax na ko ngeen dégg ko le président Bassirou Diomaye Faye président Ousmane ko moo ko tetee aussi bien dans le syndicat des impôts et bi ñu bokkoon waaye aussi moo ko tette tatagal ko yar ko ci politique waaye le président Ousmane Sonko noonu mu yaree le président Bassirou Diomaye fay ci syndicalisme bi yar ko ko en politique ba tey mu nekk président man mën naa taxaw ni le président Ousmane Sonko moom ma yar en politique moo ma tette en politique moo ma defar en politique man Babacar Ndiaye mosuma xam politique bi may xamante président en 2014 j'étais étudiant doon jàng euh, yàlla dox ba xamante juddu suñu suma diggante man ak moom mu woolu ma invité ma waxtaan ak man dugal ma ci politique yar ma ci tette ma ci formé ci xaw ma ci politique lenn lenn lenn lu ma Ousmane Sonko jàngalul xaw ma lenn ci politique lu ma Pastef jàngalul xaw ma lenn lenn ci politique lu ma euh, euh, les patriotes euh, jàngalul donc tout ceci nous le devons au président Ousmane Sonko muy gor pire nag waaye di gor pire may wax askanu Sénégal que nii je dis pas Sénégal doit avoir Ousmane Sonko comme président mais l'Union africaine doit avoir comme président Ousmane Sonko donc di wax nii Euh, ñëw africaine doit avoir un président et Ousmane Sonko lay doon incha allahu rabbi et may wax rek que ni li ñu dund ni en politique surtout li xew nii ci élection yi wala boog l'avènement Sonko comme on di dafa war a jàngal la l'opposition sénégalaise. gis nga am na jàngat bu am solo bu ñu war a def jàngat bi mooy Pastef dafa ñëw wane la vraie voie de la politique. Pastef dafa ñëw wane la vraie façon de faire la politique le président Ousmane Sonko a montré la vraie vraie vraie stratégie la vraie façon la vraie voie de faire la politique et que toute le l'opposition sénégalaise dañ cee war a jàng bu njëkk dañu doon wax que ni politique sans argent c'est pas possible bu njëkk dañu doon wax que ni politique boo xamante ni ki ko jiitee mësul am ndombal tànk état c'est pas possible bu njëkk dañu doon wax que ni politique boo xamante ni ki ko jiite amul ay lobby yu ko ngemb c'est pas possible bu njëkk dañ leen wax que ni politique boo xamante ni opposition daf ko gagner au premier tour c'est pas possible on a tout entendu mais aujourd'hui on a relevé tous les défis le président Sonko a montré que c'est possible de faire de la politique avec éthique c'est possible de la faire de la politique sans argent c'est en tout cas sans des lobbies c'est possible de lépp loo xamante ne rek ay malversation la aujourd'hui l'a réussi ma am yaakaar que ni toute l'opposition sénégalaise dañu jàng bu baax a baax a baax ci jaar-jaaru Pastef ci fukki at yi ñu génn parce que nag fukki at yi li ci xew dafa bari li ci xew dafa bari te li ci nekk ci njàngat dafa bari bi ñu nekk prison je disais tout le temps à à mes frères yi ma fa nekkaloon ma ni leen euh, on nous a raconté Thomas Sankara et son histoire on nous a raconté Senghor et euh, Senghor et Mamadou Dia et son histoire on nous a raconté euh, Cheikh Anta Diop on nous a raconté Martin de grandes figures, on nous a raconté leur Cette fois-ci, l'histoire politique du Sénégal, ñun nous, nous sommes en train de l'enrichir, nous sommes en train de l'écrire. Quand nous connaissons au contraire, fait que 20 ans, 50 ans, si nous sommes, si nous sommes, là, nous raconter pour dire qu'on est acteur. Cette fois-ci, on est acteur, nous sommes en train d'écrire l'histoire, nous sommes en train d'enrichir l'histoire du Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Jamais au plus grand jamais, jusqu'à l'extinction du fu ñu war a waxtaanee histoire politique du Sénégal ces dix ans de Pastef kenn mënu ko cee génne et je pense même que mooy nekk le nekk le chapitre phare de l'histoire politique du Sénégal ces dix ans de Pastef parce que à travers Ousmane Sonko qui a fui ou bien qui est toujours un leader extraordinaire euh, et équipe bi mu àndal yëpp on a su relever énormément de défis énormément de défis yoo xamante ni des partis politiques ont vécu aussi 30 ans 40 ans 50 ans ils n'ont pas pu faire ça hein, euh, Et je prends comme exemple, le président Senghor nous a été laissé par les Toubabs. Le président Abdou Diouf nous a, nous a été imposé par Senghor. Abdoulaye Wade, malgré la voie démocratique, Bikofal, euh, opposition bi fi l'époque il a fallu ñu dem Europe jëli ko indi ko parce que c'était vide vide la woon total le président Macky Sall nous savons tous que il fut un président par défaut mais avec ce qui vient de se passer avec l'avènement de Pastef d'Ousmane Sonko avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye les Sénégalais je vous c'est le peuple sénégalais dans son entièreté dans son unité moo jóg moo jóg tànn ko taamu ko fal ko ci fal bu mucc ayib lu musul am Sénégal lu musul am Afrique je dirais même dans le monde lii histoire da ci jàngale moo ñu wax ci tirer ay leçons yu baree baree baree baree bare et di am yaakaar nag que ni désormais fii la Sénégal di jaaree nag décoller ba faw décolé ba faw et décolle boobu nag ñu war a décoller ma waxaat ko encore une fois plus nous comptons sur la jeunesse sénégalaise euh, xam leen ni tabax doomu aadama instant bii nii moo suñu yitte ndax ñoo gëm ne tabax réew mi moom lu mën nekk la on a projet bu ko tabax te dañ koy tabax mais tabax doomu adama bi moo suñu yitte c'est très très important on a besoin euh, comme ni ko président yàgg waxee rek d'une masse critique on a besoin d'une jeunesse formée on a besoin d'une jeunesse consciente on a besoin d'une jeunesse engagée on a besoin d'une jeunesse une jeunesse ambitieuse une jeunesse qui veut quelque chose les chinois qui ont développé leur pays ay doomu aadama lañu ñaari nopp la ñu am ñaari bët la ñu am bakkan la am tànk loxo comme ñun les américains ay nit la ñu ñëpp ay nit la ñu et aujourd'hui ñoom li ñu amoon sukkandiku si ba tabax seen réew yéen yàlla may nañu ko ba mu doy sëkk ba mu doy sëkk am nañu bras yu ko liggéey am nañu ressources yu ko liggéey la moo des volonté engagement Et quand je dis volonté en premier lieu, je fais allusion à la volonté politique bi suñu gouvernants yi war a am mais aussi engagement bi askanu Sénégal war a am fekk si volonté boobu noonu ñu tabax réew mi et incha allah rabbi am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. voilà ma leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa ni message bi gudd na euh, mais je tenais quand même à le dire parce que ça me tenait à cœur quand di leen nuyu di leen ziar di leen remercier bu baax di ñaan yàlla nag euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. lii nga xamante ni mooy responsabilité mooy mission bi suñu borom teg ci kawam yal na ko yàlla oyofalal yal na ko ko yàlla yombalal yal na ko ci yàlla may ndam bu mucc ayib yal na nekk njiglaayu Sénégal yal na nekk njiglaayu ndaw ñi surtout yal na nekk njiglaayu ndaw ñi parce que l'espoir est immense et qui dit espoir dit jeunesse qui dit espoir dit jeunesse qui dit jeunesse dit avenir avenir boobu nag les présidents Sonko wax nañu bu yàgg que ni avenir boobu léegi la l'avenir est maintenant président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yal na la yàlla yombalal yéen bi yàlla yàlla oyofalal yéen bi ku baax nga ku jub nga te gor nga am naa ñu ci yaakaar bu mat sëkk di nga soxal réew mi bi soobee yàlla jaa ngeen jëf